ci euh, heure bi ñu waroon dem mu am tuuti retard bu ñu accusé euh, di wax ni euh, commentaire bi ma bi nga xamante ni moom lay njëkk def ci laaj bi mooy Sénégal état de droit la te état de droit lu muy tekki mooy réew mi ci boppam nga xamante ni gouvernement bi dafa tënku ci yoon waaye képp ku fi yeewoo tamit da ngay tënku ci yoon li yoon wax moom amul xaj ak seen ñépp ñoo ci bokk yem ak noo mënti tudd ak foo mënti dëkk ak foo mënti euh, nekk ci bërëbu liggéeyukaay ngay góor wala jigéen ngay mag wala ndaw ñun ñëpp ñoo ci bokk yam yoon moo tegu ci suñu kaw ba tax na lépp loo xamante ni yoon daf ko dàq kooku li ñuy njëkk fàttali doomu aadama yi mooy waru leen waaye bi ci topp mooy su fekkente ni def nga ko am nay daan yoo xamante ni yoon euh, prévoir na ko wàcc ko loolu it du ñu hésiter benn yoon ci def liggéey bi nga xamante ni suñu responsabilité bopp la waaw loolu li ma la ci njëkk a wax Babacar yow moom sax xam naa di ngay faral xaj na di dawal sa oto bopp wala beneen sénégalais waaye amul benn sénégalais boo xamante ni mosoo xëy bis moo xam da ngay wuy ji fenn wala da ngay dem doxi beneen soxla nga ñëw ba yegg ci benn bërëb takk der yi ni la yoon wi ngay jaar ndax ñoom xaj na dinañ yëg wala xam wala gis loo xamante ni yow xamuloo ko wala yëguloo ko lépp loo xamante ni day jur jàmm ci réew

waaw loolu damay leeral d'abord nii euh, mbir bi mi ngi ci loxo yoon déjà te lu nekk ci loxo yoon yoon moom moo ci indi settantal ba wax lan moo ci aju ñun li nga xamante ni moo nekk ci euh, wàllu sama ministère comme ni nga ko waxee léegi nii li ci jiitu mooy bu ñu gisee nii am na lépp am na lenn loo xamante ni rek am na benn trouble bu ñëw ci ordre public ñun li ñu war mooy ñu rétablir ko trouble ordre public saa yu amee rek dañ koy rétablir mais tey boo xoolee mbir mi tàmbalewul foofu mu dee da nga bëgg a wax ci li nga xamante ni moo xew tey ci suba li njëkk a am mooy te ñu koy ñaawlu mooy attroupement te jamono bii ñuy waxee ñu ngi ci état de catastrophe sanitaire te état de catastrophe sanitaire boobu am na benn décret boo xam ne son excellence monsieur le président de la république Macky jël na ko ngir aar askan wi ñu wax ni lépp luy dajaloo nga xamante ni euh, waa kër docteur nee nañ ni loolu day indi feebar képp koo xamante ni yaa ngi koy def déjà jàll nga yoon. mu am yeneen ñaari arrêté yoo xamante ni ngir appliquer décret boobu nga xam ni président de la république jël na ko jëloon naa ko man mii ngir wax ni lépp luy cortège lépp luy attroupement lépp luy procession dajale ay oto wala ngeen ànd ay nit dajaloo wala ngeen nekk ci béréb boo xamante ni euh, lim bi dafa takku yoon daf ko dàq. waaw xam nga xam nga nag euh, kii euh, Babacar yow li nga wax ni rek dafa firi boppam. parce que boo waxee ni dafa am règle am exception bala ñuy wax exception dañuy wax application règle ba noppi te application règle moom gisaguma ci xàjj ak seen xanaa lu dul ni da nga ko ñaan wala nga waxtaan ci wala yoon ci boppam waajal waaye bu fekkente ni euh, règle rek la ñuy wax kooku moom ñëpp la war muy man muy yow muy keneen. kon mm-hmm. kooku moom amul xaj ak seen. waaw euh, Babacar li may tontu ci loolu yomb la xam nga force de défense ak de sécurité moom ñun moom la ñu xam. les forces de défense et de sécurité nga xam ni ci état bi la ñuy liggéey am ñuy sol tenue am ñu dul sol tenue waaye baatu nervi bi moom man xaw ma euh, nan lay mën a duggee ci maintien de l'ordre mais ñooñu ñu ñan la. waaw loolu laa la leeral nii xam nga état. mi ak ngànnaay yi ñu yoroon. noo dama ni état lenn lenn moo ci nekk dafay am ñi nga xamante ni dañ sol tenue dina am ñu solul tenue mais ñi ngay wax noonu exactement xaw ma ñan lañ mais ñan ngay wax da ngay wax force de défense ou de sécurité wala manifestant yi. non man li ma lay tontu léegi rek la lay tontu Babacar c'est-à-dire force de défense et de sécurité yi li ci am mooy ñuy sol tenue ak ñu dul sol tenue jàkkaarloo ak ay manifestants yoo xamante ni ay sénégalais lañ ni ñoom nga xamante ni li ñuy njëkk a def mooy woo leen ci ñu dëppoo ak li yoon sam li yoon santaane ngir sàmmook moom bu fekkee defuñu ko am na ay technique de maintien ou de rétablissement de l'ordre mais euh, nervi moom man xaw ma ko li ma xam mooy force de défense et de sécurité. non yow yaa leen tuddee nervi te man xaw ma sax ñi ngay wax ñan lañ. waaw li ma mën a xamal mooy euh, warugaru état la mu assurer euh, protection loolu ñuy wax protection donc mu aar képp koo xamante ni yaa ngi yewoo Sénégal yow ak sa alal moo xam réew moo mën a bàyyeekoo wala moo xam sénégalais nga wala doo sénégalais li war état mooy mu aar sa moomeel aar la yow ci sa jëmmi bopp. loolu nak état bi dina ci taxaw ba mu mat sëkk incha allah. waaw xam nga état moom ku ko xam xam ni baaxam mooy organisation ku xam état xam ni état baaxam mooy organisation te dafa am ay kenu yu ko téye kennu yooyu mën nga def manifestation ñu gis ko mu jur fii ay tal fii wala ay sànni xeer fii mais état ak organisation ku ko xam xam ni.